ngi nuyu ñëpp di ci jiital suñu xalif la xalif général de Tidiane te mu yónni woon fi tey maam Ousmane mu ñëw ñaanal ñu tijji vraiment waxtaan bi di nuyu vraiment bu baax euh, fondation bi di nuyu ñëpp di nuyu waa Kër Maas surtout sama mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fi di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam ma wax di kontaan naa trop ci cérémonie bi parce que cérémonie boo xam ne rek dañ naan c'est le donner c'est le rendez-vous du donner et du recevoir donc vraiment Dini, action solidarité producteur ma agir pour servir Et loolu d'abord, dafa baax te fu ko jëmale mu jëlee ko ci xale yu ndaw yi nga xam ne avenir du Sénégal et ku xam li ñu tëgg yëpp li ñu yàlla defee ñu nekk ci pouvoir bi yëpp président def un programme spécial pour les enfants ah boo xam ne mu tëgg def ci lu bare bare bare bare bare bare bare boo xam ne kuy def lii rek moom ngay dimbali moom ngay dimbali di dimbali aussi des autorités locales di dimbali aussi toutes les autorités yi fi nekk muy conseil départemental muy mairie bi ci la prise en charge des enfants de bas âge donc vraiment man gëm naa ni association bi dina contribuer ci environnement sanitaire ci école parce que lii lu baax la parce que les premiers soins c'est extrêmement important parce que bu kenn gaañoo ñu mën a jël euh, wërteen jël alcool daal di koy faj bu ñu bu ñu waree lekk amu ñu ndox ñu mën jël ci euh, alcoolique da def ci lolu lu baax la à travers geste yëpp li pour soutenir dynamique sociale bi nga xamni wax que président Macky Sall engagé nako à l'échelle nationale

Moi tax maa conclure euh, affirmer toujours engagement de l'association bi boo l'action ni action yi muy def ci département bi dina nekk place cadre de coopération adéquat bu mu war a def ak mairie yi bu mu avec conseil départemental bu mu war les sociétés yi nga ici, ngi fi, au niveau de la de la région pour que nous appuyer

féetali ci Tiwaawan te Tiwaawan jëm ci kanam a kanam a kanam a kanam dëkku teraanga bi mu doon ba Alaaji Malick muy ñëw waroon a mu waroon a dem fépp ñëw dem Tiwaawan ñëw ñëw Tiwaawan ba dalal ko wéttalu ñu ñu jàngal ñu moom ñu ñaanal ñu vraiment mu sax teraanga boobu nga xam ni yàlla féetale ñu ko ba indil ñu fi arrangement yi yàlla na teraanga boobu sax jaaw di ñaanal ñëpp di ñaanal jàmm Sénégal yàlla na jàmm yàgg la sécurité et la paix moom la ñuy jàngal waa jàmm la ñaanal ñëpp wasalaam